moom ñu ñëw tey di leen yëkkati bu dee marchand yi ubbiloon nañ leen fii euh, nu mu tudd fañ daan defee fas yi am na nu mu tudd de fii ci ci ci ci ci centenaire bi biñ leen fa ubbilee dañ leen ne foofu tamit baaxul ñu ne duñ fa dem. biñ leen yëkkatee bi Petersen nag fépp marchand marchand fu mu nekk rek utal nañ utal utalool nañ la fa. ñii ne amuñu lu ñu fayee magasin waaw boo dee ab jaaykat nag te amoo junni boo fayee magasin kon looy jaay. te ñi tuddee sen bop marchand ambulant ce sont pas des marchands ambulants ambulant mooy ki wër ki toog koko ab tablier la kolobaan ku ne xam na kolobaan nu mel boo fa ak sa auto, une heure de temps do jàll waa kon lu Ousmane Sonko joxe ordre bi ministre de l'intérieur tin bind signé Ousmane signé mon mu dem kolobaan wala mu def benn euh, sorte euh, bindam tweetam ne mom yëgul woon ne lii dafa am yëgul woon ne lu mel nii ñi ngi koy def nit ñi ñi ngi koy def jeunesse bi wala ñi ngi koy def jaaykat yi fii ci Sénégal Amina man loolu man laa mënta comprendre loolu pour lan la au fait su euh, te xam naa ne Ousmane du ma ne dafa réeroo ak ministre am réeroowul ak ministre am c'est impossible réeroowul ak ministre am parce que ñoom ñëpp dicté préparé la ñuy liggéeyee lu ñu def dañ koo dig Ousmane da leen koo dicté ñu bind ba pare soo ko publier. dicté préparé c'est-à-dire des oui oui. du président ba directeur ministre jàdd euh, député ce sont des oui oui de Ousmane Sonko moi j'ai vu hier à Colobane une image boo xam je me dis où est le gouvernement parce que tu as le ministre qui, euh, euh, nu te tudd bi le ministre Ousseynou Ly nekk journaliste wala téyekatu caméra téyekatu micro nga gis l'honorable député Abbas Fall ci a gi micro bi euh, li place la toi tu imagines yorodia ministre du gouvernement ministre de Macky Sall yor yor yor ne dépend pas de de parce que euh, euh, le Gostan, il ne dépend pas de Ousmane Sonko il est rattaché directement

xale bu góor bi njëkk a def déguerpissement Tëngéej euh, fële euh, euh, Kër Massar maire boobu fu mu bokk citoyen sénégalais yi laa koy laaj mu def fa déguerpissement bu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw te waroon leen a muñal ba tabaski bi jàll dëkk dañ koy raxas dañ koy defar man xam naa loolu te lool laa bëgg ndax bës bu ne man dama koy yàgg kaas du tey rek boobu ñoom yéeguñu ci ci nguur bi waaye bu tabaski jotee weer tabaski des 10 jours mais mayel ñooñu ñu liggéey eggale bu ñu tabaski jee tabaski une semaine après da ngay gis kenn ci dëkk bi mais en une semaine mën nga raxas fi nga xam ne bëggatoo nit lal fa ku ñëwaat dootoo fa lal xeex du am xuloo du am ki nekk golf meeru kan la waaw def na déguerpissement wala defu ko ki nekk Thiès meeru kan la Biram Souley ak yeneen yeneen yenn yoo buñ koy cité fi ba suba du jeex mais lolou dafa bokk ci liggéeyu état dafa bokk ci liggéeyu mairie mais ñu jël yépp këpp ko ci kaw préfet yi ko ci kaw mairie këpp ko ci kaw gouvernement gouverneur yi maintenant daal c'est pas la faute du du gouvernement alors que ils ont signé man problème bi ma am moy li nga xamne Ousmane Sonko moko signé noir et blanc ministre de l'intérieur signé ko noir et blanc lo xamne ministre ministre de l'intérieur loxo mi ngi ci Ousmane Sonko taxaw ne moom yëgul tinut à quoi il joue yab sénégalais yi la wala miin sénégalais yi wala ñàkk leen a respecté wala ñàkk respecté boppam la moo tax nag démb dégg na nag démb dégg na violeur démb dégg na ku ko saaga démb dégg na ku ko ne nag ñoo war lu ne dégg na ko démb ñu ñëw ne montage la du montage ndax man ki ma ko yónnee ci ñoom la bokk te booy yooyu doon leen wax loolu booy ci ñoom la ñu bokk parce que sen yakara tas waxante wuñu won ak ñom li ñuy wax ay dembo ñew di ci doli nak diwlin. mais nak il ne devait pas si si si si attendre au moment bi nga xam ne dañoo woote rupture. su ko xalaatul won kon il est bête mom su sóoraale wul ne moom mi ngi dem. non population bi la wax. non attends quand on parle de rupture mom au fait tu sais est-ce que xam nga ñom pas yi fi Macky Sall def don tek rek ñom mom lañ tek dé déguerpissement bi dañ ko fi fek mhm. yëkëti jaaykat yi dañ ko fi fek recasement bi ñun bi ñu leen di jéem a recaser di leen wax ne fii utal leen ay site ñoom ñoo leen doon wan ne leen lii ñu leen def mettit la xam nga ban différence ak ñoom ak ak ñoom ban la ñu am ñoom dañ ci boole brutalité ñun amu ci woon brutalité ñoom dañ ci boole brutalité di brutaliser nit ñi

ñu wax Aïda Mbodj ñëw di jël riverains yi di leen jaxase ak jaaykat parce que ndaw si bu taxawee di ko expliquer ne ko ah ñun de amatuñu yoon bu ñu jaar yéen tey bu fii amul woon euh, bu bu bu xatul woon wala euh, jaaykat yi feesuluñ fi yéen boo leen di jaar doo leen wiiri da ngeen ñëw directement yoo nga ne yow yaay bàjjenu xale yaay yaayu xale kooku di wax yow nga naan ko bul ma joxoñ mel ni kuy wax ak sa moroom mel ni benn citoyen simple daal. nga naan ko ñii samay njaboot lañ ki dëkk ci dëkk ba dëkk Colobane këram nekk ci Colobane di wax yow di la expliquer naqaram nga ne maanaam populisme ba tey mi ngi mi ngi ci biir nga ne ko ñii samay doom lañ ñii samay njaboot lañ waa léegi ndaw si ngi wax ak yow moom du sa njaboot riverains yi ñoom bokkuñu ñu say njaboot ñoom bu ñu xaaru woon ñu leen di uwe ñoom pour la dañoo fa mooy mais